boobu euh, il faut nécessairement que mu am benn euh, mbir moo xam ne gouvernement bi moo koy. Euh, impulser peut-être après nit ñi topp ko. xañ na ñu ngi wax wuy responsable responsable débat bi war nañu avancer ci loolu bon waratuñ peut-être. def nañ lu ñuy def feebar bi ñëw na mi ñuy sonal maintenant je crois li ñu gën a war a mën a xalaat mooy fan nañu war a mën a dem pour régler la question très rapidement parce que tamit il faudrait que ci lu bëri que le président de la république indi ci quand ay coppite bu ñu passé tabaski bi ce sera une belle occasion encore une fois pour le président de la république pour nos autorités ñu changé waat ci lu bëri benn bi mooy le ministère de la santé wane na tëleem ci li nga xam ne moom moo jëm ci gestion wu covid bi maintenant pourquoi pas mënuñu dem vers la création d'un conseil national boo xam ne du def lu dul gérer lu dul wàllum Covid bi parce que ministère de la santé aussi ministère la boo xam ne nekkul lu dul Covid la war a gérer parce que yeneen yi nga xam ne ñoo gën a am solo mu di politique publique ak euh, asseoir la vision du président de la République par rapport ak justement ci li nga xam ne mooy yeneen feebar yi fi nekk loolu la war a gën a mun a toppatoo bu weesoo loolu ñu taxawal beneen kuréel boo xam ne comme ni ñu ko defee ak sida bu ñu ko defee loolu dinañu permettre tey ñu mën a am koo xam ne kii au moins dina mën a gérer li nga xam te ne nii moom moo jëm ci wàllum feebar bi parce que bu fekkee tant que un politique moom mooy gérer mbas mi nanu leer ne du fi mës a jóge il faudrait que ñu arrêté loolu jël ñi nga xam ne c'est des hommes du sérail nu ñu koy waxee ñoo xam ne ne ci wàllum santé na ñu yëngu ñu confier leen la gestion de cette Covid je pense que bu ñu ko defee dinañ mën a permettre ñu mën a trouver les bonnes solutions la répétition nañ Euh, euh, grand. Mhm. li nga wax dëgg la euh, gestion ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom. Covid bi ça été une catastrophe euh, sanitaire euh, bu ñu demee ba président di ko tancé bay xëcc noppam ci affaire gestion bi ça veut dire tout ça veut dire tout ce que cela mais beneen affaire bi gars yi mën a xam gouvernement bi en réalité feebar bi mi ngi fi de ñoom ñoo la gën a xam ne ñu ngi fi mais lan nañu bëgg mooy nemmeeku tour bi Pastef di def moom nañ bëgg wut prétexte ba interdire rassemblement yi ma wax la expliquer la xam nga Pastef bi ñu waxee ni ñoom dañuy def nemmeeku tour gouvernement bi daf leen a court-circuité def tournée économique léegi bi ñu defee tournée économique feebar boo fa nekkoon ci tournée économique bi moo fi nekk teg ba tey léegi nag propagation bi nii mu amee ba am benn sens dinañ dem beneen sens boo xam ne day créer benn psychose ñu tere kii bi donc en réalité euh, gouvernement bi xam na ni situation bi nii la fa nii la fa demee mais dafay jéem a nekk di euh, essayer apporter une réponse politique à une crise euh, sanitaire coow yi ngeen di dégg yi yëpp ak xumbal yi yëpp naam feebar baa ngi sax dañoo war a jël suñu matukaay c'est pour trouver dans l'intervalle un prétexte pour génne ay loi très rassemblement bi avec la finalité que les gars de Pastef ne fassent pas leur euh, leur nemmeeku. merci beaucoup Siré Sy 7 h yéen a ngi sur Zik FM ak Sen TV di suivre seen bloc d'information. la matinale bu leen fàtte ni mën ngeen ñëw suivre ba tey si suñuy plateforme digitale Sen TV Facebook l'officiel wala ngeen dem sur YouTube bu dee baax na des médias l'officiel wa ilaa rek ngeen téléchargé boo leen ko li nga xam ne moo di application des médias sur Play Store wala App Store léegi nag ñu daal di dalal ci heure bu baax bi El Hadji Ahmed Aïdara Alaaji le grand maire de Guédiawaye l'éminent par force ñu ngi lay dalal di la ziar ci suñu bloc d'information la matinale. de ziar. na nga ne ci application Play Store App Store. <laughs> ngeen non ah non loolu tubaab nag. mais mais nan ngeen di nekkee ak moom. loolu moom tey question la boo xam ni professeur.